salaamaaleykum yéen ya, ñi ya, nga xam ne yéen a ngi seen télévision bi nga xam moo di ya, Saint-Louis TV daleen ak jàmm seen émission bi nga xam moo di pénc mi tey ñu am mbégte mbégte gi ñu am mooy bu ñu ko commencé woon ba ñu doogay tàmbale ànd seeg sunu papa sunu xarit docteur Ndoye nekk ki nga xam ne fi représenté di Seck fii ci diwaanu Ndar ñu tàmbaloon ak moom tey année bu njëkk bi aussi tamit ci 2020 bi ñu ñëwaat suñu première sortie mu doonaat moom muy mbégte euh, mais balaa ñu sori si waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyu ñi nga xam ne ngay daan mu docteur Mbaye salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah aouzu billahi min cheytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxal luqdatan min lisaani foo xool yi kon di am mbégte man tamit sama wàll di leen dalal fii ci sama kër encore une fois pour waxtaane li nga xam ni moom batu politique waaye itam mooy lépp loo xam ne moom fa ñor askan bi kon bu ngeen fi ñëwaatee nii te ngeen mësal fi ñëw vraiment ñu ba rafetlu ko kon dama def lu gën waa Saint-Louis TV ci ñëw bi ñu fi ñëw ma leen fi accueil lan dara jàmm incha allah. waaw fi moom kër la mu mel ni euh, fu ñu tàmbalee bi depuis euh, le 31 décembre bi ñu weesu nga xam président Macky Sall gën na génn euh, def message am. boobu léegi gisuñu ngeen def sortie gisuñu ngeen wax donc nan nga gisee tey discours boobu noonu. waaw xanaa lu njëkk moom damay euh, souhaiter à tout les sénégalais ñu ngi ci biir janvier ñu ngi wax je jeex dafa dafa nañ ay fan. waaye Sénégal yëpp maa ngi leen ñaanal euh, atu deux mille vingt bu gën a neex bi ñu génne ndax mun munti am moom deux mille dix neuf bokk nañ ak at yu tar. ci Sénégalais yi kon dañu ñaan yàlla 2020 bi moom nekk boo xam ne daañ ci am mbégte daañ ci am euh, euh, daal lu gën li ñu gën daal waaw loolu laa njëkk a wax beneen bi nag mooy comme ni ñu ko waxee euh, discours président Macky Sall man personnellement damay wax dama ci tayal ndax tayal bi mooy dinaa ko déglu par force ndax suñuy adresse adresse à la nation kon nation bi da ko war a déglu

respect bi nga xam man ni mom la respecter Sénégalais yi discours bobu du ko ci indi. Ah ndax ndax li li waral Sénégalais yi le euh, président de la république comme ni moy clé de voûte des institutions dañu am ci lu de te dañu am chaque année ay problème yo xamni yoyu mom de gëna ité bu ci discours bi génn te ñun résumé nañ ko ci ñetti façon point mooy Sénégal dafa feebar ci li ñuy wax gouvernance soo xoolee institution yi chaque année dañ koy yokk ci ci ban anam moom la leen gouvernance moom gouvernance dafay laaj dafay laaj institution si laa njëkki te gis nga tey jii tey ñaata institution yi bees lañ fi indi maanaam mooy yooyu ngeen di dégg ah muy conseil environnemental bi bu bees bi nga xam ne indi nañ ko fi beneen bi fi joxoon di bokkaat bi ñu jox te am te Ndege Ndiaye ak na nag yooyu ngay gis ñu koy yëngi yooyu du bokkul ak attention sénégal ci wàllu côté institution justice bi maanaam ni ñuy àtte nit ñi bi tey nit ñi gisuñu seen bopp ndax daf mel ne justice la boo xam ne toujours day attaqué ay sénégalais fi may waxee yow xoolal ku ne Guy Marius Sagna ni ñu ko tëjee lu ko jiitu ñoom yeneen homme politique tëjoon nañ leen Khalifa Sall mi ngi doog a génn ñaata at lañ ko téye. kooku tamit xam nga ni kooku benn benn problème la. te noonu noonu lay continué boo xoolee li nga bëgg wax yëpp donc ñoom la woon boo xam ni loolu yoon ak yoon ak a xam. non politique wax. parce que aussi tamit bu ñu jël lu xew rek ñu wax yi ma lay wax ci wàllu justice wàllu parce que man yi ma lay tuddee waa wàllu xam nga yoon mooy nit ki euh, réew mi ñu koy àttee yooyu ngay wax ni ñu koy ñu koy administré. yooyu mu ngi dox mais yii xa yi Sénégal yi doon xaar ci yoon bi ñu tax ñuy wax mooy yoon boo xam ne day jaay doole nit ndax affaire politique ñu ngi ko ràpp ci kasu tëj comme ni ñu def Khalifa Sall xam ne la mu def ay maire du jeex ñu ko doon def ñoom seen bopp ñu bénéficier ba président bi ci bopp bénéficier bi. Ah, maire bi bëri nga ba da nga am ñoo si xam yow. non bien sûr. Ah. loolu yaa ngi ci ko jiitu avant moom muy ñëw. Ah. li mu def noonu Mamadou Diop def na weddi ko sax moom bi ñu jàppee Khalifa Sall dafa ñëw ne man su ngeen dee jàpp jàppal leen ndax li ngeen koy accusé man def naa ko parce que fi laa ko fekk Pape Diop def na ko keneen def na ko maanaam ñi fi jiitu woon nekk fa maire de Dakar yëpp ku nekk jàll te waxuma man du maa ci maire de façon boobu mu doon doxalee moom. Mhm. pièce d'avance yooyu boo ñëwaatee ci mel ni ay Saint-Louis yooyu dafay am. Mhm. pratique même les mêmes pratiques dafay am les maires yëpp dañuy travailler ak grosses pontes yi ñu mel ni ñi nga xam te ñu ngi ay. ay sociétés yu mag yu mel noonu ñoom ci ay mbir yoo xam ne ci biir da ngay gis pour a problème bi. kon daal bu ma déggee waxtaan bi parce que tamit calcul temps bi. day mel comme si que euh, bilan bi na. bilan bi dem si justice xam nga dama jëloon justice. non waaw bëgg ñu xam nga comme comme timing bi mooy loolu. mooy loolu des ñu bëri. kon nag maa lay xamal la <laughs> kontaan ci institution yi. Mhm. kontaan nañu ci justice bi. Mhm. Sénégal yi gis mhm. sécurité n'est-ce pas

bokkul ci askan bokkul ci dara nga ñëw rek ci benn signature nga ne ko yow jël nañu ay milliards jox ko mu nekk say loxo nga aw ci ginnaaw am jël loo jëflanteeg moom parce que loolu dañ ko mën a mu a expliquer moom nag léegi muy wër ci àdduna bi di jaay def yooyu te moo deful investissement deful dara xam nga loolu sur le plan économique kooku entravé nga tey suñu avenir économique rien que pour ça te la la même chose maam ci mine de fer yi nga xam ni moo nekk fële mine d'or yi nekk au niveau du Sénégal oriental yooyu yëpp ci même schéma bi la dugg kon nga xam ni kon moyen développement yi nga xam ne Sénégal war na ko mun am tey faiblesse suñu institution bi gën a mag te la présidence de la république et sa signature mhm. tey jii yàqal nañ foofu lu bëree bëri ok léegi nag ci wàllu gouvernement bi ma lay wax aussi mhm. mu tam bëgg yoo xam tam ñu jàpp ko tënk ko mhm. parce que sénégalais yi tey dañoo bëgg régler seen problème wala politique de l' emploi yi nga xam ne moom lay sénégalais yi doon yaakaar ni tey bu ñu ñëwee tey

xamul tax dafa gis ni ki Sénégalais yi la ñu bëggoon du woon jox ko deuxième mandat mais dafa forcer seen loxo forcer seen loxo bi da ko teel a def depuis référendum ba la commencé dugal ci texte yi nga xamante yu mel ni comme ay parrainage yi nga xam ne bu mu ñëwee ci la éliminer d' abord des des adversaires politiques muy benn. deuxièmement mais parrainage parrainage boobu yéen da ngeen ci d' accord. kan ci yéen yéen waaw masuñu ah, si d' accord. si mu ko defee nii. Ah. non du ko te ngeen bokk ci. non non yow tamit bokk ci. yow loo xam boo ci bokkul nag da ngay toog ñu seetaan rek kon. ah mais boo d'accordul ma man. non li ma d'accordul ma si dugg. non non bul wax loolu. bul wax lu ñu d'accordul. waaw d'accord mais li ñëpp bokk. waaw su ko kenn bëggee nam jël jël dem dem ak yoonam moom da nga koy dénoncer ni baaxul mais nag quand même ni doo dem élection. Mhm. kooku moom kenn xalaatu ko amul benn parti politique bu bu bu d'accord ci li nga wax ni maanaam bàyyi ko loxoom rek nii way parce que parrainage baaxul. est-ce que loolu la bëggoon. waaw justement ñu ko def chaise vide. mais quand même dañuy dénoncer lu mel parrainage bi kooku dox naa la benn yàq-yàq bu rëy mais en même temps à part à part parrainage bi mhm. tey jii fichier électoral bi nga xamni mom moy bi nga xamni tay moko may moom mhm. dal dafa yow dañ da koy reprendre indi ci jël cinquante de nos milliards xam ne ko dougal fene 52 milliards yooyu mais daf ko def lo xamni pour mom mu am benn fichier bo xamni pour boppam la te mooy leen tey man mi di wax yow sama wa kër tay jii am sama wa kër yo xamni sama soxna ak i doom yoo xamni

du question coobare sénégalais yi mais dañoo détourner la volonté des sénégalais te moom mooy volonté bu dëgg-dëgg c'est-à-dire des volonté de changement bu ko awaloon yoon lu mu tuuti tuuti deuxième tour dana am te ku mel ni deux sec bu demoon na moom deuxième tour li ñu gëm mooy kon bu boobaa moom moom mi du jàll. ok léegi sànq wax nga ko sa wax muy maanaam tekki-tekki man dama sentir ni te loolu sax du man mais. démb rek am na ñoo xam ne bu ñu yëgee dama lay invité nee ma ñu loolu question boo xam ne bu doon soog nga ba léegi ñu gis Idrissa Seck benn tekk tekkaar boo def kooku pourtant du nit mën a comprendre Idrissa Seck dafa nekk nit ku nga xam ne jàpp na àdduna bi dañ ko war a doxal de manière scientifique mbir mu ne bu ñëwee daf ci ànd ak teey ak dara élection yi buñ ci génnee comme ni ma ko waxee ñëpp gis nañ ni dafa am lu ñuy wax leçon de vie gis nañu élection yi war nañu càmbaraat xoolaat xool nan la demee kon soo gisee ni yow bu ngeen dem ak sénégalais yi ci biir élection yooyu ñu doon wax amul domaine boo xam ni waxoo ci d'abord wax nga leen lépp ci wàllu programme ba pare tam daankaafu leen ci yi nga xam ne mooy ñëw te waxoon na ne élection yi bu nga bu ngeen yéexee ba indiwaat mel ni Macky dëkk bi dana gën a métti ci yéen te yokk yi yi muy wax naan da wàññi o contraire dana leen ko yokkat te yokk lu mel ni existe dana ko yokk tey ji gis nga waxam jooju tey la wàllu gën a président ci assuré na ni leen da koy yokk te am na yeneen yokk yoo xam ne sax ñu ngi ko def rek dañu duñ ñu koy yëgal parce que li def ci gën a fes si wàllu énergie rek la mais ku ne xam ne ni tey ci àdduna yow loo mënoon démb loo mënoon daaw ren mënoo ko loo mënoon démb mënoo ko tey métti na kon nga xam ne kon affaire bi kon métti na kon nag suñu tekkaare bi nga do xam ne laa bi nga toll tekkaare bi mooy situation yi bu mu ñëwee yow sa bopp bu dee da nga war a wax waxaat c'est pas la ma wax waxeet bi wax waxaat kooku c'est pas la peine deuxièmement tamit am na yenn coup yoo xam bu ñu la ko defee da nga war a xool yoon lañu wara set ba nga xamni ne bu ëllëgee loolu du la dalal te ñun introspection bobu la def mais so set la ñun tek tekkaar ko ci wër ci radio yi ak ci télé di wax la mais sur le terrain politique mom so xolé ñi def ben liggéey interne bu rëy rëy boo xam ne tout euh, toutes les structures du parti ñi ngi nekk ci liggéey bobu kon mo lay wan kon xam nañ ne affaire bi tay ci walu politique nañu fexé ba liggéey ci fichier bi looloo tax nga gis ñu fi mel ni dialogue national bi ñu dem di fa liggéey ñu jëm a xool nan lañ ko mën a changer parce situation bu répété wu. si si dialogue boobu sax dialogue boobu noonu balaa balaa nga si génn euh, bi. absolument mais dialogue bi dañ ci choisir ñu parce que bu fekkee ni nax yi nga xam ne rek moom la Macky di nekkee rek ci wàllu dialogue comme ni ñu ko jëlee mu nekk fuur ci dialogue national am na cap am na point yoo xam mais li nga xam ne mooy jëm lépp lu jëm ci aspect politique bi mooy la dialogue politique. bi nga xam ni tey ñu ngi koy liggéey ànd général ñaar suñu représentant du début ba léegi ñu nga fa te ñu ngi fa ànd ak tout le fi ñu FRN mooy front de résistance bi ñun ñëpp ñu nga fa ñëpp ci nekk nag opposition bi ñu ngi def parce que gis nañ ni tey yàq-yàq bi nga xam ne Macky moom ko la def ci fichier électoral def ko ci wàllu carte électorale yi ak yu mel noonu ak situation politique bi kooku moom bu ne nañ ci waxtaan waxuñu ni dina ko appliqué ci ëllëg mais ñoon au moins wa nañ fa dem waxe mais gëm nañ ni sincérité boobu dana des ba tey mais ñun dañ koy mettre à l'épreuve rek kon côté boobu ñu ngi mais ñeneen ñi nga xam ne dañuy jàpp ne moom moom moo moom moo moo gagné élection yi affaire économie nan lay doxalee réew mi ko buñ ciy woo dañ ko war a war a ñu parce que moom moo ma bu naa def naa def naa def waaw ah, mi ngi def moom doy ci ngi def noonu ko bàyyi mu doxal ba su waaw moom laa moo tax ñooy ko dañ ko ciy bàyyi ah, soo seetloo ñun dañ ko bàyyi mu doxal comme ah, ñun mais xam nga ñun du def ñun ñu wóor non du def parce <laughs> xam nga ku def uh-huh.

ci jéem a xool seen ay problème di xool seen ay préoccupation ñu koy jël en charge ba léegi dafa des ci donc ñu ñëw ci li nga xam ne moo di doole Idrissa Seck fii ci doon ndax. man dama dama naan encore fois est-ce que ni mu waree taxawu dëgg-dëgg est-ce que mi ngi taxawee noonu de toute façon ñu ngi def suñu ay liggéey te ñun suñu ay liggéey dañ koy xool ci ay résultats. Mm-hmm. xam nga 2007 mm-hmm. bu ñu juddee dem élection gis nañ ñu ñoo jël deuxième bi mm-hmm. kooku leer na élection yi ñu génn aussi soo xoolee fii tamit également ñoo jëlaat deuxième n'est-ce pas donc ci wàllu liggéey bi nga xam ñu ngi ko war a def ñu ngi ci ñu ngi ci ànd ak suñu à partir e di continuer travail interne bi ñu def dem ci vers les populations structure réew mooy structure yoo xam ne en permanence ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey parce que au niveau interne par exemple ñun soo seetlee boobu léegi euh, am nañu li wax l' animation des femmes chaque weer jigéen ñi dañu dañu. moom la Mame Diarra jiite jigéen ñi waaw moom la moom la jiite.

di doxal say structure parce que ñun partenaire bi dafa def ay dépendance man maa ngi coordonné les communes mais dans chaque commune am nañu seen coordonnateur boo xam ne mooy doxal foofu muy commune de euh, Gandon comme Makumba moo fa nekk commune Gandiol ah Saliou Tall moo ko jiite commune Fass Pape Seck moo fa nekkoon mu décédé mais léegi euh, benn neveu bu ñuy wax mbokk mu Cissé moo fa nekk commune Paal n'est-ce pas Diaw moo fa nekk.

formé ko ci tamit ci yooyu béy ñu Abba Mbaye dafa bëgg génn moom tamit bokk ci langue bi ak Mansour bi je pense que muy trois suma jumul mais ba léegi daal parti réew mi déggul leen. au contraire wala wala paragu leen. waaw non au contraire xam nga affaire du question déclaration d'intention maanaam pour wane ni bëgg nga expert. ñu ngi si biir ñëpp ah mais wane gars yi xam ni gars yi xam ni gars yi xam ni. ci la ñu wax rek ñu ngi si biir. xam nga ñun dañu am benn approche boo xam ne. depuis ñaari wala ba ci.

ci biir loolu am na si ñun suñu biir ku mel ne ay Déthié ku mel ne ay euh, colonel Kébé ku mel ne Sakho ñooñu ils sont intéressés par la commune kon ñun war nañu waxtaan suñu biir ba rek la loolu ñuy doog a dem na ku ne xam ne parti politique bu fi bëgg a gagné élection quel quel soit le quel que soit le type d' élection coalition nga ko mën a jaar kon sa ambition yooyu da nga koy conjuguer ak ambition ñi nga ko bëgg a àndal parce que bu ñu bëggee ànd ko mel ni Pastef wala PDS wala ñeneen dañu xool seen ambition ñu xool ñu ñëpp xool ñan ñoo gën a apte

réew mi réew mi dama leen xam nga léegi dama la wax benn kii man la léegi gis nga ni benn parti defatul moom kese dem xoolal sax même ñi gi ñi kii est-ce que APR ma def ñun APR moo dem bi élection bu mënti la même local ñun ñoom kese ñoo dem non dañu ànd en coalition mën na nag maire jóge fa candidat maire jóge fa comme ñun ni ñu bëgg na nekk candidat maire dans une coalition n'est-ce pas maa laaj euh, euh, en deux mille euh, deux mille neuf mais j'étais coalisé avec Braille man moy mooy yore conseil département man moy nek candidat conseil départemental moom mu nekk candidat maire du de bi bi élection yi passé c'est Bamba Dieye qui était le candidat maire man nek candidat conseil bi mel non la. kon kon ren mën nañu jàpp ni waxu ngeen waxu leer de mën nañu japp ni ngeen euh, présenté ci élection. bien sûr dañuy présenté wu. maintenant ban façon lay doon ak yan candidature la am ak si fan lay kii kooku ci discussion yi and ak suñu alliés ak suñu partenaire lay génne mais tey nga anticiper sur euh, sur cette discussion da ngay polluer dialogue nous travaillons de manière scientifique on préfère travailler à l'interne nous ñun nos ambitions internes ñu après plus tard nous lañ ko conjuguer avec d'autres ambitions qui vont amener d'autres partenaires politiques. donc doo bëgg mu jeex man yëguma tànn doo yëg léegi. dama ne wax ma sax si domaine yi nga xam ne moom moo intéressant mooy lu mel ni secrétaire national santé bi nga xam maa ko jiite dans notre parti. waaw loolu bëggoon naa ko bëggoon naa ko tëj. mais mais mën nga si mën nga si dem. mu la bëggoon ah, parce que quand même bëgguma woon tey ñu tëj. Mm-hmm. te ci parti bi. Mm-hmm. man je suis le coordonnateur départemental de Saint-Louis. Mm-hmm. mais au niveau national dans le secrétariat national. bi nga xam mooy gouvernement parti bi man maa ngi yore euh, li ñuy wax le secrétaire national chargé.

jafe-jafe yi nit ñi am gis nga fi fan yi paas ñuy nettali jumeau yooyu nga xam dañ defar accident trois heures ci ngoon quinze heures ba trois heures du matin amul benn hôpital bu leen bu mën a jël nit ki ba mu nit ba mu dem faatu gis nga ko fi gis nga fi problème yi nga xam ne moom la médecin doon wax pharmacien ci wàllu ñàkk yenn produit de base yoo xam ne amul dégg problème scanner ni mu mel hôpital de Saint ak feneen ak feneen problème accouchement yi kon nga xam ne domaine de la santé mooy domaine boo xam ne moo gën a fii même li ñuy di woon sax muy la la CMU muy couverture maladie universelle gis nañ ni même loolu doxul ndaxte mutuelle yi doyul ba pare ñii li ñuy jël en charge dafa faible ba pare ñi leen jël en charge duñu leen def seen péréquation di leen di leen delloo seen xaalis donc finalement yooyu dafa paal kon nga xam ne ñoom dañoo lajj ci wat code boobu alors que ñun préparé nañ benn programme boo xam ne bu soobee

ñun dañ ñun dañu dañ dañ ni kii moom d'abord déjà raté na ndaxte nguur du moom mën nañu wax pour mu joxe emploi maanaam di joxe emploi di di di jël ay nit loolu moo gën a tuuti fonction publique ni muy jël moo gën a tuuti xam nga lan nga war a def condition yi nga xam ni mooy tax ba nit ndaw ndaw ndaw li mën a am liggéey yow condition yooyu ngay favoriser maanaam l'environnement d'emploi foofu la ñu war a liggéey te ñun côté boobu ñun pare nañ ci mais environnement d'emploi boobu nag kooku nag nguur tam moo koy moo koy doxal maanaam yow boo nekk opposant xam nga yan nga mën a def comme man docteur Ndoye mu def rek yenn saa yi ñu jàppale benn nit wala a defar dara parce que man bi ay projet jàppale ci ay projet wala fexe balaa ñuy ñi ciy am mais ay benn mais pour les jeunes de manière générale pour nga mën nga jàppale l' environnement de l' emploi ngay réglé te environnement emploi fexe ba xëy mën a am te loolu mooy napp bi nga fexe ba dimbali waa napp gi parce tey jii bu ñu dimbalee tey euh, quai de pêche yi dimbale tey euh, licence yi ay ndaw yu bari daañu am xëy foofu marché yi bu ñu fexee ba marché yi seen bopp ñu mën ko pourvoir te la moo koy pourvoir mooy fexe ba mbay mbay bi am mbayu dérivé mbay kii ñu jàppale nit ñi ci côté boobu foofu tamit fay dox beneen bu am solo boo xam ne tam waxuñu ko ci wàllu ndaw mooy c'est la formation gis nga formation dañ ko war a bi vers l' aspect technique parce que ñun suñu dëkk yi euh, côté boobu la ñu war a fexe ba def defoo maanaam fexe ba ay électricien bari hmm? fexe ba ay mécanicien bari fe yooyu yëpp ay secteurs la yoo xam ne maanaam pour formation yi cherul parce que ay formation trois ans après ba quatre ans après ba maximum yenn saa yi sax quatre ans après BFM mën nga ci xale mu am ay rudiments boo ko formé mu mën a dem dans le secteur de ñun kon côté boobu la ñuy favoriser te bés yàlla may réew mi côté boobu la ñuy préparé pour ndaw. incha allah ndar ak ndaw Sénégal bi. incha allah donc am nañu mbégte nag mbégte toog ak yow euh, di waxtaan ak yow comme ni nga ko defee suñu première sortie na amoon. Euh, di wax ñi nga xam ne si daal tamit ñi nga xam ne bi euh, am na benn journée sant Serigne Saliou bu am le 8 février incha allah jàmm gën lay doon ñu ko organisé nag moo di daayira Mafatul Bichri Touba Ndar Xelkom bu ko defee jëwriñ ngàll gaa yi wàcc bu baax a baax ñu dem fa jàppale leen.

ci xarañte bi macha allah euh, di la bàyyi da nga ñi nga xam ne doon seetaan comme ça ñu mën a boucler débat bi. vraiment ñu ngi kontaan lool euh, di nuyu vraiment seen téléspectateur vraiment bu bu bu. Saint-Louis TV bi Saint-Louis TV. Mm-hmm. Euh, ñu kontaan lool si yéen parce que première defar ngeen fi lu mel nii. Mm-hmm. ñëpp di ma ko laaj. Mm-hmm. kon bu ngeen ñëwaatee ma am ci mbégte lool. kon téléspectateur yooyu nga xam ne ñoo ko doon seetaan yàlla nañ ci gisaat seen bopp. te yaakaar naa daañu ci gis seen bopp. asalaamaaleykum di ziar bu baax a baax ñi nga xam ñu nekkoon ci équipe technique bi ku ci mel ni gaz. El Salvador Cheikh eh, Prince Prince Pro ak Mandiaye aussi ñi nga xam ñoo ñëw teewlu émission muy Samba Fall mu si chaîne bi ak sunu frère bi Djibi donc incha allah tamit Nabi ñun ñëpp ñu ngi si di leen jox ak ci allah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah maa leen di ziar. merci beaucoup encore une fois. merci borom Thank you.